keroog toj nga soirée gaynde bi mais ah. fans yu bëri yu fa nekkoon dañ ne ah, ki nga xam ne ne ah, moom mooy Papa Kéba da la a jox micro bi waaw dëgg la wala du dëgg Kéba waa Kéba nag moom sama Kéba la parce que bi may nekk ci Thione Seck vingt ans la léegi euh, booba moom wooyagul mooy li ma ko wax ci soirée ba rek con secret yi ñëw ñu ànd man ak coono moom ñu dugg ci onda bi con jox ko xaalis bi mu dem yóbbul yaa na way gérer affaire kër ga dafa dégguloon coon respecté coon sàkku barke bi ci coon ma fekk loolu ba tàyyi eh, ba wooyegul ba benn jour bi muy yéegee ñoom Babel ndeysaan Babel ak eh, Baye Dame Diop hmm. ko yàlla yërëm ne coon daal keebaa dafa war a yéeg coon ne xée Kilimanjaro di toj coon ne bàyyi leen sama rakk ji bu leen jay ginaar ba muy mbëkkee bàyyi leen kii sama rakk bopp la moom woyul duggul ci aaram munul woy moom bokkul guddi googu ñoo dem mi dina ñu bokk toog ndékkendoo waaw boo amee kilifa gu mel ne man man ma am quatre album di yàgg a tukki depuis 2003 di tukki di tëgg samay soirée bopp di ñëw ku la ku la sut ne ko njool mi su ma ñëwee sa soirée su ma nee bërët ñëw sa soirée bokk ak yow défendre sama mag fu ne liggéey mu may at su ma nee bërët da ngaa war a ne taj morceau bi ne ah tey kat am naa gan nag sama xarit ñëw na koo xam ne man ak moom du tey démb la ak yi ma wax lu rafet mais boo defut loolu rek sénégalais yi gis leneen bu mu tooxewee benn cinq minutes six minutes sept minutes joxuma micro bi bi mu bëggaatee jox micro bi dama ne ko woyal ba doyal. ah loolu nga ko tontu waaw mu ma ne ko woyal ba doyal Kéba mu pare ma jël beneen micro bi nag wax ne dama fekkee gis nga fóotu bi fóotu biir kër gi nañ ko nañ ko fóot ci biir kër gi te ci biir kër gi am na yére yoo xam ne kenn du ko fóot ci biir kër gi noonu. Mm. dañ koy dañ koy fóot ci duus bi. Mm. ay caleçon dañ koy fóot ci douche bi may lancer message sama ñaari doom yi. waaw ñooñu dinañ ci ñëw. non dama ciy lancer message rek sama ñaari doom yi Mandiaye ak Bambali sunuy doom lan. mais pareeguma ci débat bi de yaa ngi ñëwal ñëwal débat bi dama bëgg juste aussi. buñ ci euh, focaliser wu non duñ ci focaliser. dama nekk sama album bi quoi. waaw c'est c'est juste rek. Ah. dañ la xamee ak Papa Thione. Ah. ngeen yàgg. Kéba moom boo bëggee dëgg-dëgg. Mm-hmm. kilifaam laa ci aar. su ma magee. xëy na li ma magee bariwul wala ñu bokk génération man ak moom. Mm-hmm. mais parce que soixante dix huit laa judd dafa nang rek soixante laa ci aar li def ci aar defagu ko cër bi ak respect bi dafa war a daw man ku ko respecté laa mm-hmm. ci wàllu aar bi mu ci duggee ku ko ci respecté laa parce que aar moom ku ne mën kaa bay sa waar. mais dama ne nanu raf succès am na ñoo xam ne buñ ko amee rek mu demee neneen vingt cinq ans maa ngi succès te ndamooma ko bàkkuwuma def ma dara Abdou Guité sekk ñoo ko njëkk a feccal clip nongo loo ñoo defandoo lépp man Amady Papa Ndiaye ñu jili mbay yëli cun ñun danoo toj àdduna te mosu ñoo ndamu suñu mosoon a génn nit ñi dañuy kii te ba léegi ñi nga ñi yegg suñu succès mais dañ ko gérer dañuy jox grand yi cër respect nan ndaw ñi jox mat ñi c'est important Mbaye Gueye Faye maa ngi dégg mu doon wax loolu dëgg la nan ndaw ñi jox cër mat ñi parce que mag ñee ko liggéey dégg nga mhm. ñun ay légende lañ ci wàllu pecc ak ci wàllu taxaw ci kaw seen mhm. ñii fii nekk génération bi fi nekk yëpp ay xale la nekkoon di ñu siifut ñun jox ñu cër nag mhm. moom comme que mi ngi woy nit ñi commencé ko wuyu na rafetal lépp parce que nag ñun bin bin fi ñu ci tollee dañ ko rafetal ba mu jekk waali doomam la mais la mu waxoon moom ak waali la parce que loolu seen vie privée la seen dund la waaye dama bëgg li ñuy fóot dañ ko fóot ci kër gi moom bu demee ba succès moo tax mu bëgg a wax ni waali amul kilifa ñu ngi daanu parce que bu fekkoon tey avant mu am succès moom sequtagu moom moon loolu wala waxu ko dem ba ci biir nag ba succès bi ñëw. pour yéen dafa daal. nga bëgg koo wax. Hmm. Waly sama doom la nekkuma di ko man ki nga xam ne ni man du ma moom mi seetaan émission bi Waly. Hmm. xam ne ni man du ma fen te lu ma ko bëgg wax dama koy wax ku yaru la yéen xam ngeen ne dara Waly ku yaru la papam yar na ko yaayam yar na ko hmm. Keba tamit ku yaru la. waaye bu mu topp succès bi ba succès bi bëgg ko kii moom defagul dara. Sénégalais concurrence bi ñu commencé di concurrence. non Wally ak Kéba Wally ak Kéba du nu benn déglu ma rek. ok waaw loolu laa hmm. moo ko jur. Thione Seck moo ñëwaat nekk Wally lu li Sénégal yi mooy. Hmm. Wally c'est pas Wally c'est Thione yàlla moo ne Thione Seck li mu daj ci aar daj ko ci musique def ko ci lépp duma bind di effacer gaa. àpp coon fii la yem mais yàlla mu ne ne ne damay jëlaat taqandeeru coon wàccewaat ko muy waali ñu bëri aussi Ameth dañu jàpp